sama xarit yal na yàlla ubbi buntu wërsëg yi yal na la yàlla làq fa yàq eggul jéggal la sa ay bàkkaaru njëkk ak sa ay bàkkaar yu mujj yi nga xam ak yi nga xamul yu ndaw yi ak yu mag yi yi nga tey ak yi nga teyul doomu yaay yal na nga bokk ci ñi nga xam ne ëllëg yowmal qiyaama du nu tiit du nu jàq sama mbokk man dama laa bëgg te yàlla tax wallahi dama laa sopp te yàlla tax te li tax ma bëgg la mooy da am yëg ci doomu aadama lépp loo bëggal sa bopp bëggël nga ko sa mbokkum jullit lépp loo sa bopp bañal nga ko sa mbokkum julit doomu yaay nekkal ci jàmm boo tëddee nelawal wallaahi yal na la yàlla fay sa xol yal na la yàlla fay sa xol yal na la yàlla fay sa xol naa la bëgg naa la wóolu naa la am naa yaakaar ci yow yal na nu yàlla suturaal ak mboolem jullit sama xarit képp koo xam ne bëgg nga ko sopp nga